lan nga doon préféré yow tu aurais préféré après avoir ne le combat en 2012 contre Wade. Mhm. ce que doon nga doon bokk ci ñiy préféré mu mu dem. non moi j'étais cent pour cent troisième mandat. ah bon waaw ah, mosuma ko nëb man moo man. mais fan nga teg loolu. non xam nga fi ma ko teg loolu c'est personnel c'est man ñu baal ma de dama mel ni benn sénégalais buy wax rek sénégalais laa mënuma dépasser loolu man ak ci mbedd mi. am na ñoo xam ne du duñu yaa xam duudu faatu keneen soo ko waxee soo ko waxee peut-être ku yoonam nekkul sax ci politique mun la man su ma sañoon i day def troisième mandat waaw boo sañoon mais mais moo tax man dama ni su sañoon non c'est kooku c'est un Sénégalais amul benn responsabilité mais yow mënoo fekkee li nga fekkee ba pare mm-hmm. xeex li nga ci xeex mm-hmm. après nga ñëw ngeen bëgg a rééditer la même chose non bokkul na ko bu ñu ko xam boobu sax suñu fa duggee dañuy dugg ci débat juridique boo xam ne tranché nañ ko pour man sama xam-xam fa mu toll ah sama bët fa mu toll loolu laa bëggoon mais du man kese ñu bare am na ñeneen ñoo xam ne tamit mais ñi ngi woon ci ñun nee woon nañu doy na peut-être parce que dañu sonn peut-être parce que leneen ak leneen argument bi mais lii ma xam nga c'est la première fois d'abord nit sax interrogé ma koy wax lii moo doon sama position mais man sama position ndeyu mbili gi xamoon na ko ñama bokkal. donc yow doon nga doon bokk ci ñu koy pousse pour mu def troisième mandat non du pousse Macky Sall kenn du ko pousse Macky doo kenn du nit bu ñuy pousse mën nga ko pousse sax mu lay bàyyi ci biir yolomal yaram bi ngay pousse ni maa fa nekk di pousse mais gis nga bis bi muy freiné ah soo moytul.